waxtaan ak euh, ki nga xamante ne mooy le ministre jël kayit bi jox ko ko da nga koy may jot nag mu téye kayit bi jàng ko bu ko jàng nag ci la lay mën a tontu donc ñu ngi xaar réponse am ci fukki yi ñu ko laaj yëpp buñ ci amee satisfaction la moitié wala plus de la moitié dañu sant yàlla rek ay revendication la ñu lamb ci ni mu tëddee neexuñu. bari na ay sanction pécuniaire bari na ay sortie délibérée bari na booy dugg ci lamb ji bari na bari na à pas finir maanaam mbëri amuñu fenn fu ñu à l'est ci biir lamb ji lool nak taxaw kaas ba mu deñ wala ba mu wàññeeku def ci jaadu ate aussi bëgg nañu aussi lamb ji jóge ci CNG dem ci fédération fédéré ay fédération jafewul hein ah. bu ñu ko bëggé bu ñu fi daan ay woy fédération c'est pas possible ndax Thiès ndax Kaolack il y a une façon de fédérer. Il y a plusieurs façons pour fédérer. Pour fédérer, les, les, les, il, faut fédérer il faut fédérer simplement les écuries, parce que écuries, nous sommes les composantes de l'ambadi. Donc, écuries, nous avons voter. Mais ça, nous avons une fédération. les beneen lamb yi nga xamante ne mooy bëre simple bëre grec-romaine bëre lii bëre laa ñu bàyyi ko CNG mu doxal ko parce que loolu c'est l'État mais la lutte est privée bu ñu fàtte ne Abdoulaye Diop Matar ko privatisé daf ñu ay professionnel indi ay promoteur mais lamb ji promoteur yi ñoo koy doxal non mais nañ ko nañ fédéré écurie yi et la vie la vie continue salaamaaleykum wa rahmatullah